merci beaucoup euh, ami internaute euh, yéen ñi xamante yéen ñuy suivre partout dans le monde à travers la télévision Kabir TV euh, bonjour et bienvenue dans votre émission Kabir matinale émission Kabir matinale une émission qui vous donne l'utile et l'agréable mais une émission qui vous donne à chaque fois les bonnes informations fii leen koy euh, tataane bu baax a baax mais aussi rek lépp loo xamante ni euh, maintenant la Kabir TV dafa jéggi frontière daal di nag jéggaani fépp foo nekk rek si àdduna wërngal këpp mun nga ko daal di euh, am di xerewlu nag li nga xam ne moom moo di les bonnes informations à temps réel fii rek lay xewee fii si biir Kabir TV waaye na aussi seen émission mag bi saa su nekk ñu leen koy daal di tataanal muy Kabir matinal ki Mouhamed Ndaw di ko daal di servir li nga xamante moom moo di askan bi wala boog li nga xam moom moo di euh, jaami yàlla yi ñu koy daal di bu baax a baax moo tax saa su nekk rek a baax di leen euh, euh, yi noonu la ñuy def di nuyu kilifa diine yi leen di jaajëfal bu baax a baax ñaan leen wër ak gudd fan waaye tamit rawatina xalif généraux yi yal na yàlla a ba li nga xam ne mooy mission bi ñu mun ko mottali di boog di ñaanal ñu nekk maison de la yàlla ñaanal leen fa yàlla génn ak jàmm ak salaam di ñaanal yàlla nekk euh, hôpital ndoo la ñu tëdd seen kër yi taal tawat yàlla fëgg seen bopp yëkkati la ma fi yëkkati yeggul di nuyu nag euh, yi mooy chauffeur ñu leen di ñaanal yàlla jàmm tali waaye tamit musal leen si accident yi yooyu yëpp ñu leen koy ñaanal waaye tamit ngaa yi nga xam ne ñoo ne seen bureau yi di xerawlu di taataan ak euh, Kabi TV ñu leen nuyu deen jaar bu baax a baax di nuyu nag ñu ne si marché yi suñu yaay yi suñu soxna yi di daw di daan lépp loo xamante rek moom la daw yàlla na ko yàlla jotani waaye tamit nag di nuyu nag ñi yi ma maçon yi ak menee euh, di euh, bi donc nag ñu ngi nuyu maçon yëpp ak menee di nuyu nag sama waajooju Laat Thiaw Laat ñu lay nuyu baax a travers euh, la télévision Kabir TV ñu jaajëfal baax a baax yéen maçon yi ak yéen menee bëri comme nag li nga waxee rek mbaam gàtt na lool mais si jur gi la bokk ñoom ñëpp ñu aussi leen di nuyu di ziar bu baax a baax. Euh, fii nga xamante moom moo di euh, Kabir euh, TV noonu la ñuy def rek daal di nag jukki leen li nga xam ne moom moo di les informations nga xamante nii saa su nekk rek noonu lañu koy defee tey nag dañu koy daal di tàmbale rek fi nga xamante ne nii moom moo di fii nga xam ne moom moo di diwaanu Thiès kay benn dëkk ñaari gaar nga xamante ni dañ doon inauguré rek li nga xamante nii moom mooy euh, maanaam euh, saxaar gi euh, démb la woon nag ñu ko doon inauguré mu nekk loo xamante nii ni kii dina daal di tàmbali nag def li nga xamante moom moo di daal di liggéeyam fii nga xam mooy diwaanu Thiès mu amoon nag cérémonie d'ouverture bi nga xamante moom moo di gaar bi dina daal di daw bu baax a baax daal di jukkiwaat li nga xam ne moom moo di transport bi daal di ñëwaat moo dem koom-koom beeg yooyu yëpp dal di suqalewaat si biir Thiès ndax xam ne ne Thiès saxaar gi da koy daal gën na mooy li nga xam ne moom moo di koom-koom ak doole moo tax nag daal di neen li nga xamante ni euh, jébbiwaat li nga xam ne moo di mbir gi maanaam dekkaliwaat cosaan li nga xam ne moom moo di fii si Thiès Kaay benn dëkk ñaari gaar nag luñ ko xamee rek moom moo di di ko dàkkantale euh, Thiès Kaay benn dëkk ñaari gaar moo tax nag saxaar gi dina daal di diqiwaat fi nga xam ne moom moo di euh, Thiès waaye nag loolu yëpp ñu ngi ko amee woon nag démb doon def nag li nga xam ne moo di cérémonie d'ouverture bi nga xamante ni ñëpp ñëwoon di ko daal Euh, amal nag euh, ni ki démb la woon loolu nag ñu ngi nag di jaajëfal nag ñi nga xam ne autorité yi nga xamante nii dex wax nañ si euh, tànki jéego ba loolu yëpp daal di yembat yi mbokk yi dañuy daal di tàbbi na fi moom moo di l'observateur moom tamit daal di ñëw rek si jologu démb bi daal di wax rek ko tire son juin loolu nag mu nekk loo xamante nii loolu yëpp ay propos yu ñu daal di euh, teg la ngir nag daal di def ak ay euh, li nga xam ne moom moo di ay euh, dis dispositif yoo xamante ni le président de moom moo ko daal di jël ngir nag ñi amal nag li nga xam ne moom moo di jàpp date ngir ñu jëm si élection yi waaye date boobu nag jàpp nañ ko rek à propos daal leen def proposé dat boo xamante ni le juin lañ ko daal di Euh, proposé ngir nag ñu dem si nag moom moo di euh, élection yooyu mu nekk nag élection yoo xamante ni euh, ndiki dialogue démb bi ak barke démb ñi ngi ko doon def fa nga xam ne moo di jam ñaajo rawat na rek ki nga xam ne moo di Euh, fa la ñu daal di dëppee euh, kiiyu Abdou Diouf bi mu nekk nag loo xamante ni njiitu réew bi woon ñëpp ngir nag ñu ñëw fekk ko foofu ñu daal di def nag ab waxtaan maanaam euh, laaj ak tontu kenn ku nekk di jukki sa xalaat noo ko gisee ak naka lañ mën a jooyante li nga xamante ni moom moo di réew mi ngir nag ñu mën a dem sa kanam waaye kii di Idrissa Seck moom nag ndaamal Kajoor nee na dafa def tekkaara rek kenn dégg ko moom daal nee neen dafa def narale demul si bii boor demul d'abord maanaam daal fekk jiwul njiitu réew mi waaye tamit demul fi nga xamante moom moo di FC 25 mu nekk loo xamante ni ab ngaral daal dafa mel ni dafa daal di nërmeelu togg ruqam euh, kenn déggu ko si benn li nga xamante moom moo di euh, mbir moomu waaye tamit euh, buñ demee fa la nga xamante mooy prison ba dinañ fa daal di fekk nag ab soxna soo xamante nii moom daal ak jëkkëram leen dal di jàppee rek dugal si kaso bi soxna si daal mu ngi wax ne moom si biir li nga xam moo di kaso bi la daal di amee doom waaye doom ji daal kenn euh, ngéntewu ko euh, ñu dem si li nga xam di wàllub euh, nga xam moo di lutte lutte nag moo di Gris 2 moom tamit daal di nay dagg tikeem daal daal di jàmm jàkkaarloog démb moo di le doyen des juges fa la nga xamante loolu démb la woon sa tribunal bu Ndakaaru moom Gris de gannaaw nag bu ñu ko tuumalee ay tuuma rek daal di koy jàpp nag defee ko niki démb nag la doon jàkkaarloo ki nga xam moo di juge bi ngir nag amal ab layam waaye ba tey rek li nga xam ne moom moo di euh, loolu ki ñu ko xam ne mooy euh, page 8 waaye page 8 aussi moo ñu daal di yóbbu nag si nga xam ne di Sénégal ba tey si wàllub làmb coupe du Sénégal loolu nag la fédération daal di nay def nag innovation boo xamante ne ni bu jéggi dayo la si wàllub làmb ki nga xam ne moom mooy président CNG ba di euh, Birane ki moo di Birane Ndoum moom moo ko li nga xamante moom moo di président CNG boobu noonu daal di def nag ay innovation yoo xamante ni daal di ko koy eh, indi nag si bopp li nga xam moom moo di eh, làmb ji mu nekk loo xamante ni eh, lu ñu daal di rafetlu la daal di koy daaluñ ko gis nag si wàllub tàggat yaram lu toll ni wàllub làmb waaye tamit bu ñëw si enquête enquête nag dikk ñag si le conseil constitutionnel moom nag daal di ñëw rek lépp yoo xamante ni da ko daal di teg ay position wala boog ay proposition ngir nag jëmale ko si dialogue bi ay li nga xam ne moom moo di loi miss bi nga xamante nii daal euh, wundu na ay euh, problème yoo xamante nii depuis euh, dialogue bi nga xamante nii dañ ko daal di def ay problème yoo xamante ni maanaam kenn ku si nekk daal bu fekkee ne danga nga nit wala nga defoon naka sa noonu wala ñu tëjoon la kaso loolu daal dina ko daal di depuis 2021 ba léegi loolu yëpp bu loi bi jàllee dañ koy daal di tegani ci suuf duñ la daal di topp dara loolu nag dinañ ko daal di xaatim daal fa la nga xam ne moom moo di pencub ndaw réew ma wala boog ay projet yoo xamante ay projet de loi la yoo xamante dañ ko daal di tekk mu daal di dem sa nga xam moo di euh, fële sa assemblée nationale ouverture euh, université Cheikh Anta Diop bu Dakar nga xamante ne nii euh, étudiants yi nag depuis lundi ba léegi dañoo fa am rek ay difficulté ba ñu ubbee li nga xamante moom moo di université boobu ba léegi ñoom daal ñoom ñi ngi xam ne rek fii boobu ba lundi ba léegi ñu ngi am nag ay difficulté yoo xamante nii moom la ñu jàkkaarloo li nga xam moom moo di daal di ibbee li nga xam ne moom moo di eh, école bi waaye tamit li nga xam ne moom moo di le quotidien daal di ñëw rek si loi admise yi moom tamit daal di si indi ay raison yoo xamante ni wala boog ay propos ñu daal ki nga xamante moom moo di le président dafa mel ni dafa xalal yoon kii di eh, Karim Meïssa Wade ngir nag mu ñëw eh, bokkaat si li nga xamante moom moo di langue politique bi gannaaw bu ñu daal di dàqee woon li nga xam ne moom moo di rek ab candidat am ne nag dafa amoon nag li nga xam ne moo di double nationalité dafa mel ni fu toll nii kii di di président de la république da ko daal di euh, talalat loxo ngir mu daal di ñëwaat nag bokk si li nga moo di mbir mi euh, fële sa li nga xam moo di ministre yi nañ amal nag li nga xamante ni ni ki tey euh, daal di voté nag projet loi boobu daal di koy cambar bu baax a baax loolu si mardi bi lañ koy dal di def muy si mardi bi lañ ko jàppoon waaye tey si mercredi bi lañ koy amal fële sa assemblée nationale rawat na ñu dem si li nga moo di le soleil le soleil nag daal di ñëw rek moom tamit si wàllub dialogue Euh, le dialogue national propose 2 euh, juin euh, li nga xamante ne mooy 2 juin li nga xamante moom moo di élection yi maanaam moom daal la daal di teg si njëkk bi moom la ne xam ne moom moo di propos yi le 2 juin lañ ko daal di proposer ngir nag ñu daal di koy amal li nga xam ne moom moo di élection yi libération daal di ñëw nag si moom mooy ba tey date bi nga xamante ni aussi mooy le 2 bu ñu daal di proposer daal di nañ koy jàpp nag ay raison de politique yoo xamante ne nii moom moo tax ñu daal di koy euh, puusaat ba le 2 juin euh, prochaine bi nga xamante ni moom lañ nekk 2024 euh, prison ba nekk fële sa Ziguinchor ba léegi ñi ngay tàmbali leen di daal di rek def li nga xamante ne ni moom moo di bàyyi ndëgëndëkum li nga xam ne moom moo di prisonniers yi ñu tuddee détenus politiques ñoom daal ñu ngi leen di tàmbale di libéré ki ñu si gën a nemmeeku nag moom moo di Thomas Mbodj ak ki nga xam ne moo di Abdoulaye Diatta ñoom ñaar ñooñu aussi bàyyi na leen fële sa prison bu euh, Ziguinchor ñu dem rek euh, si nga xam moom moo di la libéra la tribune la tribune rek moom tamit daal di nay ñëw rek euh, si protège bi nga xamante ni moom moo di loi amnistie yi nga xamante ne nii daal di leen koy tegani Macky Sall veut protéger quelques membres maanaam bëgg na daal làq ñi nga xamante ñenn si ñi nga xamante ni ñoo nekk si ginnaawam loolu la libération moo ñu ko daal di xamle ba tey rek ñu daal di wéyee li nga xamante ni moom moo di information yi fële sa Walf Quotidien Walf Quotidien nag daal di dikk nekk si dialogue bi ak li nga xam moo yi nga xamante ni euh, moom mooy électoral bi Macky sal fee li nga xamante moom moo di ay euh, mbiram ngir nag euh, Karim Wade mën a bokkaat si li nga xam moo di élection yi waaye na page 3 moom mooñ ko daal di xamle les échos ñëw nag si li nga xam moo di ñett weer li nga xam moom moo di ñett 3 mois de gâteau la ko daal di moom tamit tuddee muy rek li nga xamante ni moom mooy euh, deux juin bu ñu daal di euh, te ngir nag élection yi ñu naan li élection présidentielle 2024 date ba daal dinay tijjeeku kooku nag ki nga xam ne moom mooy euh, bés bi le jour nee na li nga xam ne moom moo di commission di dialogue propose une date d'ouverture bu nga xamante ni mooy le deux juin 2024 bi las daal di ñëw la dialogue aussi mooy propose le deux juin ba tey ñoom ñëpp rek ñu ngi ko daal di tënk si nga xam moom moo di euh, proposé date bi ñu daal di proposé le 2 juin moom tamit mu ñëw proposé le wala boog def ay loi admis yi nga xamante ni daal dinañ koy euh, tegani euh, sorti prison ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye fay ñoom nag agent bi nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ñoo aju si nga xamante ni moom moo di ginnaaw Diomaye Faye ñoom nag dañoo daal rek def li nga xamante moom moo di ay action yoo xamante nii ngeen ñu daal di yëkkati li nga xamante moom moo di bàyyi national euh, dañuy daal di nag euh, dem fi nga xam moo di international international saa su nekk rek euh, nuñ koy daal di farañ fàccee dañuy dem nag réew Mali Mali nag daal di nay annoncé rek daal di libéré trois yi nga xam moo maanaam ñetti italien yoo xamante ni daal dañ leen jàppoon depuis 2022 mu daal di ñëw fi nag mooy trois ressortissants italiens daal daal di nag mu nekk même famille boo xamante ne nii dañ leen daal di rek jàppoon mu nekk jëkkër jabar ak doom ñoom tamit naal daal di leen bàyyi nag euh, mai 2022 leen leen daal di ne waaye fu mu toll nii nag euh, bàyyi neen bàyyi bu baax a baax libere leen ñu daal di dellu nag li nga xam moo di euh, seen i kër tey si démb si guddi gi guddi 27 ak guddi 26 la leen daal di libéré 2024 annoncé nag si mardi bi li nga xamante moom moo di gouvernement italien bi daal di joxe nag li nga xamante moom moo di ñett ñoo xamante ni ay citoyen leen waaye tamit ay li nga xam ne moom moo di uh, ay uh, italiennes yoo xamante ni daal dañ leen daal di jàppoon jàpp bu yàgg yàgg uh, waaye nag ñi nga xamante nii daal di leen leen libéré ñu bàyyi leen bàyyi ndëkkandëgu waaye tamit bu ñu demee fa nga xam moom moo di Niger Niger nag ba léegi daal di ñëw rek si la CEDEAO confirme li nga xamante moom moo di Bénin ak la CEDEAO ak ki moom moo di Togo loolu nag seen dossier dossier bi nga xamante ni nga xamante moom moo nekkoon woon njiitu réew ma ñu daal di koy uh, jàppoon defoon ko uh, coup d'état uh, Niger daal di nay nag am benn nag ki nga xam moo di ancien président Mohamed Bazoum moom nag ba léegi mu ngi nekk détenu politique si biir li nga xam moo di kaso bi ku gannaaw nag coup d'état bu ñu ko defoon rek si juillet 2023 bi moom Mohamed Bazoum daal di nay ba léegi rek nekkan si li nga xam ne moom moo di foofu sa kaso ba CEDEAO def na nag li nga xamante moom moo di si weekend bi maanaam daal daal di eh, élire li nga xamante moom moo di ay eh, sanctions yoo xamante ni eh, li nga xam ay sanctions ba pare def ay libération euh, mais bu ñu defee organisation yëpp nag daal nañ koy confier dossier bi nga xamante ni daal moom moo composé ki nga xamante ne moom moo di euh, Mohamed Bazoum moo nga xamante moom moo nekkoon euh, président ba daal dinañ koy nag ba léegi daal nekk ni bi nga xamante ni moom la nekk si kaso bi moom leen daal di xamle nag si nga xam moo di xët bu njëkk bi waaye nag nemmeeku nañ ay composition yoo xamante nii lii di dëkk bi xam moo di Bénin euh, Togo ak euh, Sierra woon ñoom nag daal nañ ko enregistré ku ñu ko xam ne moom moo di euh, RFI moo ñu xamle loolu bu ñu demee fa nga xam moo di Texas Texas foofu nag ancien national bi nga xamante ni moom mooy agent national des actions bi nga xamante moom mooy élection yi proposé nañ la date de 6 6 mai 2024 ñoom daal ñi nga sa li nga xam moom moo di mbir premier pour les premiers tours euh, présidentiels ñoom nag ba léegi euh, fa nga xamante moom mooy di agent national des actions de l' euh, bi nga xamante ni daal moom proposé na le 27 février 2024 la date de 6 mai prochaine bi nga xamante moom leen daal di dëgmal premier tour ya nag présidentiel bi nga xamante moom moo ko daal di xam ne rek daal di ne nekk amal nag li nga xamante ni moom moo di euh, seen euh, jàpp seen date daal di koy amal nag la 6 mai euh, bi nga xamante ni moom mooy si weerub 2024 bi ñu dal di nekk ñu dem fa nga xam ne moom moo di sport wàllub tàggat yaram bu ñu ñëwee nag si li nga xam ne moo di mercato bi l' international sénégalaise U20 moo xam moom mooy Mamadou Thiam ex et l' ancien joueur du Jaraaf Mohamedou Wele ñoom nag dañoo daal daal di rek euh, s'engager engagé ay li nga xam ne moo di euh, avec euh, l'ASC Jaraaf ñoom leen daal di amal nag ay engagement l'association sportive de Pikine a annoncé sur les réseaux sociaux la signature de l'internationale sénégalaise U20 Mamadou Thiam en provenance de l'ASC Douane moom nag fa la daal di rek amal li nga xam ne ay révélation le désormais ancien profil de li nga xamante moom moo di bi nga xamante daal moom moo daal di Euh, wekku si loolu daal di nay amal nag ay euh, li nga xamante moom moo di euh, mbir yu yoo xamante ni daal di koy yokk si li nga xamante moom moo di transfert yooyu waaye kii nga xamante moom moo di Joseph Senghor daal di nay révélé nag ay révélation fa nga xamante moom moo di Wii Sport après son départ officiel nañ ko les 20 février dernière par le club de la Médina kooku mooy Mohamed Wale moom nag Euh, daal di nay euh, prendre li nga xam ne moom moo di euh, du temps pour retourner une club le désormais ancien sociétaire de l'ASC Jaraaf de Dakar engagé na nag ak ASC Pikine ñoom nag dañoo daal di lëkkaloo rek def nag jënd ak jaay maanaam nag si wàllu li nga xam ne moo di mercato bi nga xam ne moom lañ nekk ba tey mercato bi moom lañ daal di desandi ba léegi li nga xam ne moom moo di congolais bi Abel Gozaz moom nag daal di nay nekk rek moom tamit dem fa nga xam ne moom moo di euh, Casa Sport moom euh, euh, ki nga moom moo di waa Casa Sport actuellement dixième du championnat sénégalaise moom leen daal di nekk actuellement Abel Gossan moom nag ancien meilleur du terrain bi nga xamante ni daal di am nag ay atam toll si ñaar fukk ak juróom moom nag libéré na depuis juin 2023 rejoint na nag les du club sénégalais pour Tour euh, daal di inscrire nag euh, ki nga xam ne moom moo di euh, nouvelle ay équipe boo xamante ni moom mooy jaraaf ki ñu ko xam ne rek moom Casa Sport du moins ki ko xam ne rek moom moo di kii nga xam ne moom mooy West Sport moo ñu xamle loolu ba tey rek agent libère depuis la fin de son contrat avec le club congolais de de 30 juin 2023 le milieu terrain avait relevé un nouvel du côte bi nga xamante ni moom moo ko daal di euh, rénové daal si li ngay xamante nii moom mooy euh, code bi nga xamante moom mooy sénégalais Abel Kosan moom nag daal di rejoindre équipe bi nga xamante ni moom mooy Casa Sport kon nag fu mu toll nii euh, li nga xamante moom moo di mercato bi euh, tijji na ñi nga sa li nga xamante moom moo di mbir yi mu nekk nag loo xamante ni lu am solo la rawatina su daal di tijjee rek euh, daal ni dañuy daal di euh, dem si équipe yi fasante daal di fay nag def li nga xamante moom moo di ay jongante loolu moo na daal di nder képp li nga xamante moom moo di suñu xibaar yi waaye nag dañuy desani rek li nga xamante moom moo di diwaanu Thiès ba léegi nga xamante ni gaar boobu ñu ko doon inauguré démb nit ki démb rek lañ ko doon amal mu nekk nag loo xamante ne nii dina daal di eh, waat fii si eh, diwaanu eh, Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñu daal di nag amalaat nag li nga xamante nii moom moo di rek li nga xamante moom mooy ay mbir nga xamante ni Thiès kaay lépp luñ ko xamee rek moom moo di ab gaar wala boog ab saxaar ba lañ koy dàkkante Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar loolu nag ni ki démb la woon ñu doon def nag cérémonie d'ouverture bi fële sa wàllub gaar bi mu nekk nag loo xamante ni Thiès waa yëpp Thiès kaay ñu koy xaar fii nga xamante ni ni moom moo di si euh, dëkk bi ndax nag euh, lépp loo xamante ne rek koom-koom lay andil dëkk bi euh, dañ si taxaw moom nga moom moo di gaar bi dafay yokk ay koom-koom waaye gën a développé li nga xam moom moo di ressource bi nga xamante moom moo nekk fii si biir Thiès loolu nag ñu ngi koy jaajëfal ñi nga xamante ne autorité yi nga xamante ne nii daal dinañ si taxaw daal ba def li nga xamante daal moom moo di dékkilaat li nga xamante moom moo di cosaan ndax nag moom mooy suñu cosaan bu baax a baax ñi ngi leen jokk dig daje di jaajëfal ñëpp bu baax ñi doon bàyyi xel xel rawat na nag doon taataan si biir Kavir TV di jaajëfal bu baax a baax suñu woo cameraman yàgg di bu baax a baax waaye tamit euh, rawat na léeg-léeg dafay am ay divers yoo xamante ni ndax euh, ñenn ñoo xamante ni euh, suñu gisee muus rek dañuy daal di tépparlewu daal di nag dem sa <laughs> loolu ay divers la yoo xamante ni mënut ñàkk ñu koy boole si yoo xam mooy ay faits divers yu am solo la di nuyu nag suñu mbokk ñi nga xamante ñoo ñooy maçon yi ak ñi nga xam ne ñooy mën ne bari ndax nag ñoom nee neen dañoo bokk si li nga xam ne moom moo di société bi ne leen di tuddaale di leen di nuyu bu baax a baax mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen émission incha allah ba suba ak